xam sa xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee El Hadj Omar Tall mu sell mu tedd mi jàmbaar ja El Hadj Omar Tall mi ngi juddu ci 1794 ca Alwar ci podoruk tey gii ana kuy waajuram xanaa du Adama Aysa Tall ana kuy waajuram bu góor xanaa du Cerno Seydou taal muy askan wu teel a gëm te bëggoon diine El ak ndawam da ko jaabante diggante alxuraan ak tool yi ginnaaw nag bi ko bàyyam ubbee ci xam-xam da ko bàyyi mu dem ñeneen mottali xam-xamam waaye El Hadj Omar sol dem Fuuta Jalon ngir yokk xam-xamam ngir xam lu gone xamut foofa sax ci la jàngee lii di Tijaniya ginnaaw bi nga xamee ne jàng na xam-xam ba gëstu ko loola moom moo tax mu am ay xarit ci diggante bi El Hadj Omar Tall nag wàññiku nag ñëwaat Fuuta ngir waajal yoonu Màkk ci yoon woowu nag bi muy ñëw Fuuta ca la jaar Fuladu tase kii di Molo Ege mi ngi mujj a wooyee alfa Molo mu jaar bi mu jaaree Rip fa la gisanteeg Maba Jaxu Ba El Hadj Omar bi mu agsi Fuuta dafa agsi muy 1826 mu ne day waaj yoonu Màkk waaye ndaw yoon wu gudd ca la jaaree Masina ca la jaar Sokoto ba ak Égypte ba demee ba Médine nag ca ku tedd ka ku màgg ka cheikh Mouhamed El Ghali kooku nga xam ne taalibe cheikh Ahmed Tidiane mu mag ma la nga xam ne moo sanc lii di Tijaniya te mu defoon ko xalifu Tijaniya foofa ca penkub naar ya cheikh Mouhamed El Ghali ne alaaji Omar Tall def naa la ngay xalifu Afrique sowu jant Soudan ginnaaw nag bi mu jógee Makka alaaji Omar Tall dafa dem Jérusalem dem Damas dem Keer ca Égypte waaye ca Keer danoo amoon aaday ku ñëw di borom xam-xam ñu yóbbule ca université Al Azhar nga jàkkaarloog borom kàngam yi ngeen di joŋante ca la El Hadj wane lim man ñu xam ne kii kàngamu xam-xam la fóore la. El Hadj juróom-ñaari at toog na ko Sokoto ca wetu émir bii di Mohamed Bello di doomu Ousmane Dan Fodio. nga xam ne moom mu mujjoon nekk ki koy xelal gis ngeen de bi nga xamee ne El Hadj ma nga fa bi nga xamee ne jiyaat bi am na ca Adamuwa bokkoon na ca jiyaat booba ginnaaw loola nag mu wàññi ko jaar Ségou jaar Masina jaar Kangaba jaar Kankan jaar Timbo soog a ñëw nag déngu ko toog fa foofa nag la tabaxee jumaa ja jumaa jooju nag terewu ko teer ak galet ma reprendre jumaa jooju nag terewu ko àggale téeréem bii di Rima 1845 Alaaji Omar Tall cale na damay dellu Fuuta Tooro 1846 waaye ba muy wàññeeku mu nga jaar Gaabu jaar Casamance gu kowe ga jaar Gambi jaar Saalum jaar Bawol Kayoor ak Waalo bi muy agsi Alwaar fekk na mu toog ñaar fukki at dellu suut ci dëkk bi foofa nag la waxee ne Afrique soowu jant gépp dana leen defi jullit ndax jiyaat ca lay jaare ba defar réew moo xam ne Afrique soow jant gépp lay lëkkale El woote nag jàmbaar yëpp wuy si ko mu ànd ak ñoom nag dem jëngu ko booba Fuuta xam ngeen ne amoon na lu fa xewoon ba diine ñëwoon di jiite 1725 waaye ñi nga xam ne ñoo sosoon loola ban wanee gannaaw njaboot gi juboowunu alaaji Omar fexe ba njaboot gi juboo ngir ànd ak ñoom dem ci jiyaat bi ca la demee dingaraay 1849 toog fa ci coobarey Bukari Tàmba Saaxo doon buur ba noona nag pël bambara awsa ñépp wër ko muy mbooloo mu rëy muy taalibe yoo xam ne daf leen a jàngal ba nekk ñooy kànk fóoree alxuraan waaye nag muy jàmbaar yoo xam ne da leen a tàggat bañ nekk jàmbaari xeexkat 1851 Imba Sakho buuru jalonke yi moom rafetluwul nitu lislaam kii nga xam ne mi ngi fi toog tey am doole mu ne kon da koy génne daal di koy wër nag waaye jàmbaari El Hadj Omar ya daal di wëlbatiku dal ci seen kaw dàq leen yéeg Tamba ca capitalu jalonka dugg noona la jiyaat amee ndamam bu njëkk waaye nag bu ñu fàtte ne keroog alaaji alaaji amar ne ngànnaay yi nañ jóg ñu daal di jëm bambuk foofu nga xam ne amoon na ay dëkk yi malenke ñooñe 1854 1855 lañ nangoo dooni jullit ah jàmbaar yaa ngay wéy wéy nag ba àgg karta waaye lu doy waar mooy ca yoon wa ca lañ jëlee ñooro waaye xeex bu métti bu mag am na ca Karega 1856 ca la jàmbaar ya yéeg ci kaw Masina nga xam ne ñoom dañoo jógoon ne dañuy kar Alaaji Omar at ma ca topp Alaaji Omar bi nga xamee ne Faidherbe bu dal na ca kawam ca Médine mu am ay yàqu-yàqu ak ay ay gaañu-gaañu yoo xam ne ay jàmbaaram am nañ ko foofu amu fa ndam 1858 Alaaji Omar daal di jëmaat Fuuta ngir wuti ay nit ca yoon woowu nag bi muy wàññeeku loolu la pël di tuddee fergo te noonu la Alaaji Omar bi nga xam ne ci yoonu jaar la nekk jaar bundu daal di wër Fuuta am ay jàmbaar bi nga xamee ne ñëpp mat na mu del si ñooro daal na nag fi mu ne dem ca Mali jël ségu rek moom la gis noona nag la commencé xeex ya ñu door xeex yu méttee métti xeex ba nga xam ne moo ca gëna a métti di woy tala mu doon ca satunbar 1860 mars 1861 El Hadj Omar daal di dugg Ségou Sikoro di capitalu dëkku bambara yi ah xeex yi ci topp nag ñi ngi amee Masina Sékou Ahmadou booba wàcce na ardo yi ginnaaw xeex bi nga xam ne moo am nukkuma ba pare nag sas lii di dina muy nag réewum pël moo xam ne masina la ne te 1818 la ko dooroon waaye émir bii di Ahmadou Cheikhou ak Alaaju Omar booba am nañ wuute ci seen diggante loola tax nag ñoom ñaar ñu jaamarloo xeex bu métti mai 1862 alaaju Omar am ndam ci kaw Masina alaaju Omar dem am ndalaay def ko pey ba toog fa waaye Masina ne nanguwut Masina ànd ak buuru Tombuktu ne doom dañuy jóg fayu noona lañ dem wër am ndalaay mai 1863 fukki weer waaye alaaju Omar bi mu demee ba nga xam ne bëgg na ñoo loolu jeex ah dafa jóg rek ànd ak ay ñooñam février 1864 jëm réewu Dogon mbooloo moomu nag doon segu Masina Tombouctou daal di dal ci koom boobu fekk na ñoo leen ëpp mbooloo fekk na it ñi ànd ak Alaaji Omar sonn nañ ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite xeex bi muy Alpha Omar Cerno Bayla ak alfa Ousmane keroog fa lañ ñàkkee seen bakkan Alaaji Omar nag daa di dellu gannaaw ca la dugg ca montagne bi ñuy wax falaise de Bandiagara te ñu tuddee ko Degembéré taarix boobu ñëpp dégg nañ ko waaye jarbaatam bi di Tidiane alfa Ahmadou nga xam ne moo nekkoon du Dukombo moom moo ñëw dal ci kaw ñu topp nijaayam daal di leen di tas tasaare dal ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daw ginnaaw loolu nag mu topp leen fexe ba moom Bandiagara daa di nag lu mat ñaar fukki at mu toog fa doon buur Ahmadou Cheikhou taal boobu doomu Alaaji Omar ma nga ànd ak Alburi Njaay ñoom ñu jàkkaarloog général français bii di Louis Archinard ca Awsaya fële ca Niger Alaaji Omar di nit ku mag Alaaji Omar ndonoom kenn du ko fàtte Alaaji Omar turam dootu fay Alaaji Omar borom xam-xam bi Alaaji Omar borom gànnaay alaaji Omar ana luñ ko wayelut xanaa kay lu géwal xamut ana luñ ko wayelut xanaa kay lu gëstukat bañ a gis waaye kenn dootu ko fàtte alaaji Omar tubaab jëlut ngànnaayam tubaab bu ko yor da koo sàcc alaaji Omar dafa xeex xeex ba man xeex ba am ndam alaaji Omar kenn reyu ko suul ko alaaji Omar kenn dàq ko mu daw kii mooy alaaji Omar Taal alaaji Omar mi nga xam ne tey Seydou Nourou mooy baayam Alaaji Omar lañ doon waxtaanee xam sa démb xam sa tey xam sa démb Amsata yi di waxtaan wu leen Goethe Institut mai ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut